mbokk yi dali nag ci revue d'actualité bés bi ñukoy doré ka 8 huitième de finale Ali Ligue des champions yi ni tay lay daal di tàmbali Sadio Mané ak Idrissa Gana Gueye nekk nañ ñaari doomi réewu Sénégal yi nga xamanté tay war nañu bokk ci xew-xew bi ndaxte Liverpool fay dem fekki ji Atlético Madrid Paris Saint-Germain itam fay fekki ji euh, Dortmund bu dee Sadio Mané nak

Mon kon sax té mo li nga xamanté modi wax sa xalaat bi internet yu bëri yi nga am te réagir nañ ci émission bi euh, japp nañ ni euh, Paris Saint-Germain ak Liverpool dinañ am ndam ci kaw Atlético Madrid ak Dortmund. ñu joxé ay xibaar ñeel défenseur sénégalais bi ci Kalidou Koulibaly ni ngeen ko nemmeekoo week-end gi passé euh, bokul ci match bi nga xamanté Naples mi ngi ko doon jouer aljuma itam mom Kalidou Koulibaly du bokk ci déplacement bi nga xamanté Naples dina ko amal fofu ci Brescia moom nag gannaaw mu jugee ci ab blessure euh, jamono gi mu melni euh, dañ koy daldi garder ngir mu boko ci match bu am solo bobu namte mi ngi ñal ba 8 huitième de finale Ligue des champions yi te Naples fas ci jàkkaarloog Barcelone. coupe arabe U20 lañuy ñuy wax ci gende yu ndaw yi euh, amal sen match gu ñëk muy match de poule ñu fas ci jàkkaarloo Émirats arabes unis tay kon lay doon Sénégal di leen fàttali ni momaka Madagascar Madagascar ñu won bokk ci bi waaye ginnaaw ba Qatar ak Comores daal di amali li nga moo di seen forfait ci la organisateur yi daal di invité ñoom ñaari réew yooyu Sénégal nag mi ngi nekk ci groupe D bi bokk kook Soudan Libye ak Émirats arabes unis mi ngi jàkkaarloo tey li mbëbëtu euh, gone yi nga xamante Issa Aydara lañ ca àndal muy adjoint Youssouf Dabo mooy ñu am victoire tey balaa ñuy dajeek Soudan ajuma ngir euh, daal di am wala ñu dëgëral li nga xamante moo di seen place euh, ci quart de finale tournoi bi ñu tëjee revue d'actu bi ak li nga xamante moo di wàllum làmb ah, bu mu jógee Paris ay semaine ngi nii Modou Lo jamono gi ah, dem na États-Unis ngir waajal bu baax combat wam boobu nga xamante mi ngi dox ci diggante mag ah, Ama Baldé kon Modou Lo dimanche la dadi di génn Ndakaaru daal di kon foofu na xamante États-Unis lépp nag ñeel wàccaayam ci combat wam ak Ama Baldé moom Modou Lo mi ñuy woowee Rock des Parcelles Assainies dina euh, toog foofu ca New York lu tolloo ki weer ngir euh, daal di waajal combat bi bu baax li la indiloon ci ay revue d'actu bi euh, di